bismillahi irrahmani irrahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisaani yafqahu xawli bokk ñu déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu Sud FM seen rajo seen jitaay mi tuddee Al Bidaaya ngeen koy am guddi ak ñett waxtu wi dëllu si nañ ko defal si ngeen ci ànd ak seen mbokk alxaaji al ustaas euh, Sëriñ Mbàkke Sylla ak seen mbokk Alioune Sall ginnaaw mi sante sunu borom subhaanahu wa taala julli ci Yonent bi alayhi salaatu wa salaam ñaan jàmm ci réew mi ak réew bi ko wër Haji ñu nii ci studio bi Haji Mbacke asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Euh, ak grande forme allah mel ni da ngaa jàpp affaire yi. alhamdulilah alhamdulilah. <laughs> jërëjëf Oustaz. nu bàyyi la nga nuyoonteeg way déglu. jërëjëf ñoo ngi lay fay nuyoo di nuyu mboolem ñi nga xam ne ñooy bàyyi xel si defem seen rajo rawatina seen jotaay bii di albidaaya di ñaan suñu borom subhaanahu wa taala mu def suñu nuyoo bi mu fekk leen ci jàmm. aj Mbàkke amin kon nu jotaay bi di tëddee jërëjëf oustaz niñ ko baaxoo tërale lañ ko fas yéene tëraleeti insha allahu taala daañu jukki laaj yi nga xam ne lenn ci actualité yi nga xam ne moo gën a ràññeeku ci ay bis gi ñu nekk ak gi ñu génn euh, bu ci kanamee tuuti ñu dalal gan ñi nga xamante ne war nañoo séq ak ñoom aw waxtaan boori min wi ñu ànd ak mbokk yi ci téléphone bi ginnaaw bi ñu tënkee xibaar ci français ak ci wolof ànd ak auditeurs yi ci 88 ñu ne ci biir réew mi ñu nekk bitim réew 33 ñuy mbokk yi jotaay bi ba une jot ba fanweeri simili ñu yëkkati ko ci xaaj bu njëkk bi dëgtalaat leen tafsiru quranul karim bi ñu amoon ay gi ñu génn buñ ci noppee ànd ñoom ci alkitab ànd ñoom ci rijaalun xawla rasul ak muhammad nabiyuna sallallahu alayhi wa sallam noonu la ñuy wéyale jotaay bi oustaz ba 5 jot ñu déglu alquranul karim 5 heures ñu ànd mbokk yi ci almisbah 6 heures ñu ànd ñoom ci waxtaanu subhaanahu wa taala oustaz la jotaay bi fas yéenee tëddee jaajëf xanaa rek suñ mbàkkee ci tàmbali bi rek jaale ak ñaanal sunu wayjur we muy Mamadou Diop euh, nekkoon ancien maire de Dakar ñaan borom subhaanahu wa mu yërëm ko te oyofal suuf ci kawam amin mhm. amin amin oustaz jërëjëf yal na yàlla nangu ñaan yooyu mu mel ne sax euh, jàmmante yi xam naa li yóbbaale ñaan yee koy nuyoo yi ñoo koy yóbbaale waaye ñu doore ci euh, kilifa googu nga xam ne wàcc na fi ab liggéey mhm. dafa mel ne moom oustaz nekk na fi maire de Dakar ab diir moom kay nekk na fi ay yëf yu bari ab diir kay mhm. diir waaw ndax ku yàgg ne ci politique bi la ku ci yàgg liggéey la euh, ba ni xëy sàngoo suuf bërkaati démb wala bërki démb nekkoon na maire de Dakar. Mm-hmm. ab diir. Mm-hmm. boo xam ne bii tabaarakallahu jamono yi muy door a tàmbali nga xam ne mbalit mi dañ ko yoroon. Mm-hmm. dakaar mos na fee set. ndeysaan. Dakar na fee set wala bu mos na fee tane lool. waaw. moom ci liggéeyam dokkoon. ci am na fiit ay barab yoo xam ne ci moom la soqi ko mu def ko. ci wàllu politique xeeti stade xeeti yu mel noonu daal. Mhm, moom jàmbaar la ci anam googu. Mhm. waaw waaw am na solo kon ñu ñaanal ko rek ni nga ko ñaanale noonu suñu boroom yërëm ko. tamit waaye dafa mel ne oustaz euh, waxoon na nga fi ne dee it am aw waaraate la waaye am njàngale la. Mhm. tey boo ko doon jàngale ci wàllu politique ci langue googu nga xam ne ci la bokkoon doon ci kilifa. bari na lu nit di xëccu ba mu jaral ko lu ne moom doonoon na ko. Mhm. te tey jii war na fi ginnaaw lépp bàyyi ko fi dem loolu man jàngat lañ ci war a def. loolu la suñu Abdul Aziz radiyallahu ta'ala anhu waxoon. kër moom tiimee Lamine Gueye. Hmm, ndeysaan. kër moom tiimee Lamine Gueye. Hmm. mu ne ah Lamine dee ngi nii tëdd. Hmm, ndeysaan. ndomba gu takkal nañ ko ko. bis na tey tekki nañ doom bi yëpp. tu lemin Lamine néew bi la tudd. daañu ne li hada fa li amal la amiloon. politicien bu nekk suñu mbàkk ñoom ñëpp ku ci nekk war nañ sàmm mm-hmm. xam xel loolu. Mm-hmm. ak itam sa baat ginnaaw nag boo demee. Mm-hmm. ndax woykatu araba def ne kenn ku ne ci ñun dañ lay waxtaanee bu subaa. fexeel ba sa waxtaan rafet. waaw. bul tëdd mukk ñu naan jëloon na kees. bul tëdd mukk ñu naan ja waga woon na. bul tëdd mukk ñu naan defoon na nangam. ndax bis boobu jaasul kenn sëñ Mbàkke. politiciens yeeg sëriñ Cheikh Ilimaan yeeg yëpp. defe naa xam nga Ahmed Dansokho wallaay wallaay góor googu nee na. Hmm. deer rek mooy démocratie. ndeysaan tey. nga xam ne moom ñëpp a ci yem. moom nee na dee dong nag mooy démocratie. <laughs> waaw dee de ku mos dund mos ko. jeex na <laughs> ku mos dund mas ko de. ku mos dund mos ko sëñ wallaay wallaay jërëjëf ci laaj solo am na solo Oustaz na ko yàlla yërëm xam naa ci actualité laay daal di sataxlu. Mhm. ndax njëkkanteeg lenn ci waxtu wi nga xam ne moo nekk ci suñu kanam Oustaz. Mhm. Mhm. Euh, ay bis gi ay bis gu fees dell la. ak yoo xamante ne ay xew-xew la. nga xamante ne euh, daanaka léeg-léeg ñu waxee ko noonu ci média bi. waaye nag euh, ci wàllu politique la ëppee. ndax ni réew mi tëddee lu ne man mën naa xew waaye dafa mel ne bu dul yëngu-yëngu politique duñ ko tuddee sax actualité. Mm-hmm. parce que politique dañoo gën a njaxlaf gars yi ci pénc bi. Ah, loolu loolu laa oustaz. loolu dong nag. man de damaa seetlu dafa jékki-jékki mel ne ñun dañoo jékki-jékki rek bëgg politique. ñooma. ñoo ñu indil loolu. képp. <laughs> waxoon naa la yaa naa maar fi nekk nii. waaw ñoom it jugaat nañ. jeex na yëgut rek ma la li def. tàmbali nañ de. noonu nag nooy nelaw rek. <laughs> ndeysaan jóg ñu ne la sëñ ab sëriñ du bokk. Mm. <laughs> nga bàyyee gars yi. ndeysaan waaw ah tubarkàlla am na solo oustaz. Mm. Euh, ba tey jii sax laay doore ministre bi nga xam ne moo jiite ministre yi di jëwriñu ministre yi mm, di seen njiit di premier ministre. Mm-hmm. ma nga woon fële ca assemblée nationale. Mm-hmm. pencum ndaw réew ma. Mm-hmm. waaye nag assemblée boo xamante ne opposition bi bari nañu ko wuute. ndax gis ne daal euh, minute yi ñu leen fa jox jaaduwut wala ñàkk dëppoo ci nañuy tërale jotaay ba. Mhm. nooy jàngate loolu bala ñu wéy. Euh, jërëjëf man de waxoon naa la fii ci njàngat yi. Mhm. ci seen daje yooyu. Mhm. ne leen man li may jaaxal mooy xeetu séddalinu. minutes yi. bu fekkee ñu baree baree bare dañoo am fukki minute ak ñaar ñu si jëlalin ko. nga xam ne boo nee mbokk yi asalaamaaleykum mu jeex. boo nee asalaamaaleykum rek mu jeex. ba fi ngay wax waaleykum salaam ñu la konk ne la jeex na. monsieur. Mm-hmm. jeex na. <laughs> te dañu ne dañuy laaj. waaw waaye nañ ñëw rek yëkkati leen seen loxo ñu bëgg laaj ñu laaj. waaw mais xam nga itam da daa mel ne ca duggin waa na parti ya bindoog la leen fa dugal noonu la noonu la fa daraja yi ëppantee ci minute tas boobu nag mooy saf nag léeg-léeg. Mm-hmm. ginnaaw daal député nga. ndax téeméeri minute ak nangam ñoom ñu ne leen fukki minute nangam ngeen ci am. ginnaaw yow ginnaaw yow député nga. <laughs> waaw da nga am sañ-sañu laaj. Mm-hmm. moo xam bi ci pouvoir pouvoir bi moo xam ba ci lële député yëpp. ñu ne leen ku ci nekk am nga cinq minutes ñëw leen hmm. waaye bu fekkee fokk ñee ñooy ëppale hmm. ñii fukki minute ak ñaar nga jóge cil maxa mbaakol hmm. oto jël nangam ak ñëw bu fii agsi ñu ne la yoon ñaari minute nga am sëñ Mbàkke ñaari minute boo nuyoo waaw Cheikh Ablaye Dieye doo nga laa gis mën koo gérer ndeysaan moom koy faaw nga faaw nga daaraa ak xam wax mu mën a jàll lu ko mooy doo dem fenn <laughs> jërëjëf loolu rek ay tax nag moo tax kon ñoom wuute nañ ko oustaz wuute googu ñu ko wuute te ñoom ñëppit askan wi tànn leen yóbbu leen fa ndax jàpp nga ne mm, minute yu ñàkk yaa doy wala boog doxalin wa war naa tax ñu faste seeni loxo wala noonoot baax na gannaaw bu ñu demee dem gaag bañ a dema a waaw xam nga opposition léeg-léeg hmm. wala ñuy opposé wu léeg-léeg hmm. dañuy dañuy wu ci seen biir hmm. tax sa buum jëmee an waxuloo buum shatta fukki million ñaar mën nañ ko jël jóg ko kenn ci ñoom <laughs> jox ko kenn ko waxal waxal tënk li war a wax jox ko tënk a wax lépp jox ko. Hmm? waaye absenté gi moom. waaw ñaare xam nga politique comme ay ay ay calcul la ñoom seen yooyu. Hmm. ñàkk gaa teewe daal moom léeg-léeg suñu bàkkee. Hmm. la muy jur teew gaa ko doon gën. waaw man su ma doon xelal dama wax lu di métti teew leen. waaw lu muy néew néew néew jugal nga wax ko. xeet wi séen la ca nga am cay point loo am jël. dëgg la wa shukran tubarkàlla am na solo oustaz premier ministre dem na fa yëkkati na ay kàddu njàngat yi ñu ciy seetlu day am ñu ko gisee ni ah moom daal daa mel ni génnu tayam bi moom politique la gën a saf rek ndax wane ne réew maa ngi dox maanaam président mi ngi liggéey gàcce ngaalaama Sénégal moom tubarkàlla ma ngi ca yoon wa euh, yow nooy jàngate loolu oustaz ah alhamdulilah <laughs> ma ngi ca yoon wa ah. alhamdulilah waaye daal sëñ Mbàkke hmm. <laughs> am penc ci ñaare. Euh. liggéey moo am ak wax. liggéey ak wax. saa bu wax bëree rek liggéey néew na. Mm-hmm. saa bu liggéey bëri rek wax néew. Mm-hmm. sullatun minal awwaliin. wa xaliilun minal aaxiriin loolu rek am saa bu wax bëree. Mm. yëgal na jëf néew na Mbàkke est-ce moom it fi réew mi toll nii nga naan réew maa ngi dox ak réew maa ngi ci jàmm ak réew maa ngi nangam loolu moom euh, day am koo xam ne bu ko déggee danaan kii xanaa meneen réew lay wax mu dul mii ñu nekk. Ah, euh, en tout cas wax daal su baree <laughs> eh. jëf néew eh. jëf néewee wax bari oustaz réew moo xam ne gerew man sama sañoon mhm. dañuy bëril jëf ji te néewal wax te néewal wax ci hmm. waaw rek waxul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu soo borom nee na ku jëf <laughs> jorul ngay wax man mii maay wan li nga jëf ndeysaan waaw ñoo ngi koy ñoo ngi koy nag waaye daal hmm. góor góor góorgóorlu jëf daal wàññi wax ji man moo gënoon. ndeysaan daar ji loolu la bëgg. Ah, tubarkàlla waaw baax na danañ ci ñëw ci. gën koo yaatal monsieur le ministre. danañ ci ñëw ci gën koo yaatal oustaz. waaye daal euh, xam naa ne réew moo ne mi ngi dox te jamono jii daa mel ne gereew daa xew. ndeysaan damaa xamut li élection yi jub si moo tax. wala réew mi moo metti wala liñ leen waxoon dañoo dem ba seen yaakaar jeex. waaw oustaz fi mu ne daanaka secteur bu gërewut ci réew mi moom. waaw xaw tuuti kon gën a amut. waaw day hmm. tubarkàlla. Hmm. Euh, mbir itam. Hmm. bu fekkee ne mi ngi dox léeg-léeg bu fekkee ne mi ngi dox coow yi bari euh, ñu ko waxeeti grève yi bari ak ñoom seen yooyu su fekkee mi ngi dox du ko yàq waaye su doxul nag bu grève yi am rek tabarkàlla muy tàmbalee feeñ ndax ruq bu ne fi nekk mi ngi mel ni ci lu ci luy ci luy bax loolu nag euh, dafa am jaw joo xam ne dafa war a gën a dal mm-hmm. politiciens yi li jig ñun ci penc bi mm. mooy jaww ji dal. loo yaakaar ne moo waral grève yi oustaz rawatina bari gi nii loo yaakaar ne dëgg dëgg looloo ko waral. dëgg dëgg li ko waral. Hmm. mooy danoo waxtaan li ñëpp yi am ci ci penc bi. Hmm. c'est-à-dire li ñuy fay ay nit. kenn hmm. waratu na xam sa morom lañ koy fay. bu siwee ba ñëpp xam ko ne lañ koy fay. Hmm. ñu yokkalaati di yokkale ay trois cent mille quatre cent mille. Hmm. su loolu amee rek penc bi kenn ku ne nañ ma yokkal. Hmm. tong tong bi ci penc bi. Eh, ku ne da nga indi sam na jox ma sama nar kon su boobaa. loolu rek ko koy waral. waaye am penc daaw doon loo xam ne day dox. ci secret. ñëpp ne cell kenn du xam li nga xam mhm. nga góorgóorlu sa liggéey bu ñaq weer bu deexee ñu jox lañ lay jox nga moom ko mhm. waaye su fekkee man xam naa li ngay am xam li kii di am xam li keneen di am mhm. rajo bi léegi tey nga dégg ko naan ah man kat yàgg di wala maa am naa lu di am lu mu amut su ko defee toll na ñool dëgg la loolu am na solo oustaz baadu suñu président yee suñu état yi buñ faloo ba jub ab élection ay élection bëgg a faluwaat leen di jaral euh, ku ne ku ne oqo ñu fajal la sa aajo ku laaj xaalis ñu jox la ko ku yëngutu ñu ne la kaay jéem dalal sam xel ba tax ñu tollee fii yëngutu bi di bari loolu de ku ku ku ma dëkkoon sam noppam di la ko wax hmm. dama naan la al yàlla def ne mooy malikal mulki hmm, tuutil mulk man tasha hmm. wa tanziul mulk mi tax kon bu la yàlla falee fal gu demee noonu bul lijjanti la fa tax a toog bàyyi ko sa bopp rek bu jeexee mu mu mu foqar ci. bañ a falu di def ay calcul yi faluwaat. boo ko defee rek. daanaka te def calcul yi liggéey rek. coono muy ëpp toog bi. Mhm, te noonu ñaare ko falu. Mhm. siiw maa ngay ampal rek tàmbalee campagne deuxième mandat. wallaay. Mhm. loolu nag day ëpp. la li ko waral nag ni moo xati la ko. mooy bu fekkee duñ fal ci programme. kii falu du falu ci programme. wàccal ma mosog. musu góor rek ma fi nekk. dëgg la. Mhm. est-ce que am na solo oustaz jëf ci tomb boobu damay delluwaat ca assemblée ba ak tey ji ca ndaje ma fa premier ministre doon amal. Mhm. am na fa ministre yu fa jël kàddu bokk na ca ministre bi ñu dénk wàllu yoon. Mhm. wàllu atte yi ca aju wax ci wàllu parrainage bi ñuy wax. Euh, maanaam daal signature yi nga xam ne moom la ñuy laaj. tontu na ci wane ne daal yemale candidat yi lañ ci jublu. ndax bu njëkkoon dañ naan ko amul parti yow la ñuy laaj signature yi mhm. ki am parti moom parti am rek doy na ko ngir mu nekk candidat léegi mhm. nag ñu ne ki amul parti ak ki am parti ñëpp a ci yem oustaz noo jàngate noonu mu ko leerale waaw xam nga parrainage bi nga xam ne mu la ñuy def mhm. bu leeree pinc bi lépp lay arrange lañ cay ragal kay mooy dem ba ci digg ba nañ cee jël kenn ne ko indi woy signature. wala hmm. sa nangam signature baaxul. ndax ci lal ay ndëgg sërëx ak yooyu képp ci ndëgg sërëx yi amul. Hmm. ñun ñëpp la war a arrangé ci penc bi. Hmm. su ko defee danañ ci mën a wàññi parti toogloo ci parti ah. parti bu ñu xam ne kon kii mën naa dem. laaj leen xaalis bu bari. laaj leen laaj leen signature yu bari. ndax ku war a yor réew mi ëllëg. noonu ko bàcc si waxee. war ngaa mën a war nañ na mën a xam ne yow nangami nangami signature wóor laa jafe. donc su fekkee ne. transparence am na ci mu leer naññi hmm. loolu arrangé nañu hmm. la ci nit ñi ragal nag mooy indi sa indi sa douze mille signature hmm. ñun la nàngam yi moom yurut léegi bay wutiwaat ñu la kon toogal loolu moom bu ci dee am suñ mbàkkee moom kay daa mel doo amaat sans recours doo buñ ko xasee rajo rek jeex na toog nga toog nga daal def noonu laa di ko expliquer loolu nag bu dee <laughs> jubluwaay gi moom su boobaa mën naa indi ñol ñol jox na ji kenn du xam fu mu àkk waaw waaye nag bu leeral nañ ñi loolu moom moom arrangé noonu arrangé na penc bi mhm. ndax noonu kat suñu mbàkkee temps bi ñu jël ci ay élection ak guddaay beeg yàggaay beeg ñoom seen yooyu mhm. trois cent parti bu ñëpp ne ay président la ñu doon mhm. trois cent liste trois cent couleur amul ci penc bi dëgg la de dëgg la de shukran am na solo oustaz am na nag njàngat yu ci mbokk yu baree bari di def ci wàllu làngu politique gi gis ne daal ci xeeti ndëgg sërëx yi la bokk <laughs> ndax dañoo seet na yi jàlloon 2012 ñoom de xamante nañ xamante nañ ñoom kii rek junj am na ko ko mën a firi. cokkeer daal munta réer morom ja ci mbooy. te it am na ci ñu bare bare bare ñoo xam ne ñu bokk benn école ak benn maître bu ñuy wax maître Wade. yor kare ni ci tableau bi. dir dinaa li lii mooy waaw. waaw léegi da ngaa jàpp ne bu boobaa kon yi ñu def ñoom maanaam euh, ak nuñ ko mën a tuddee rek ñoom la ñuy wax ëpp naa xeeb. waa xamante nañ waa ji dañuy xamante. yaay la waa ji bëgg def rek kii xaw na koo xam. loolu nag mooy jul ñoor jag col jal ñoom seen yooyu lépp ku ci nekk xam nga fi nga la góor gi waxoon ne hmm. boo defee nii nii ngay def góor gi lii la waxoon hmm. daal di wax ki nga xam ne dafa bëgg a toog ci bi ak yow mi ci toog oustaz lépp lu tax nga bëgg koo delloo ci góor gi déedéet c'est-à-dire euh, góor gi dafa maanaam mu mel ne moom moom mooñ daal mbir yeeg yooyu nii dafa leen a jàngal politique ñoom ñu tasaaroo hmm. biñ tasaarooyee maanaam xam nga ñoom ñëpp ci ci benn parti. waaye moom mi ñu jàngal moom mi ko gagné ci ay élections. waaw ci biir système boobu lañ ko gagné. waaw mais mais système bi moo fi dox nag ñoom ñëpp ay libéraliste lañu. wala hmm. li ci ëpp bokk. Hmm. bu kii ne nii kii dana xam ne kii fii la jëm. Hmm. mu xam ne kee fa mu kii fii la jëm. loolu nag calcul yu métti yooyu moo ci jur nga xam ne waa ji dana xam ne. kee fee mu jëm ne góor gi noonu ku fa jëm danga nga am nangam. kon nag naa fexe ba mu fa jëm. xanaa politique daa amatul dëgg ñun li ak dëgg maanaam daa amut ci politique. ak ca jafe logique hmm. ak ah doo dégg ñoom ñu naan la politique du ëmb nga xam ne day xëy aussi bu waa ji wax da naan kii li muy wax dëgg la maanaam amul leneen lu ne ci ginnaaw ndekete day wax wax joo xam ne son bi génn ci gémmiñ gi bokkut ak li ne ci ginnaaw wax ji ah xam na ci am de <laughs> loolu garaaw naa mas liir nazaraat bu man falowt yi naa la ko abal hmm. al man falowt yi benn bindikatu arab la hmm. xam naa suñu gan ñi xam nañ leen eh, comme ñoom ci alibra bi la ñuy def al man falowt yi daf ne taallamtu siyaasa taallamtu siyaasa wala astati an akuna siyaasiyan li anni taallamtu alkaziba wala astati an akuna kazaban maqaal bu am solo la daf ne damaa jàng politique ba tey munuma ko man ñu ne ko lu tax mu ne fen laa jàng ba tey munuma ko man moom noonu la déggee politique ah jàpp ne ki mën a politique mooy ku mën a wax lu du dëgg. waaj boo jàngee maqaal boobu sa yaram day daw. est ngaa jàpp ne maqaalam boobu moo maanaam mooy réalité wu politique bi ñu dund nii. bu leerul xanaa daal bu bu bu dee noon la demee bay ba ñu noppalu ko. nekku ci 100 pour cent. Hmm. nekku ci 100 pour cent. Hmm. waaye y a quelque chose. nga xam ne kon li ñuy tuddee parrainage nii mën nañ koo tuddee ak yamale kandidaa yi bëgg ñëpp yam kenn ku ne am cinq 65000 signature waaye fekk la ca biir leneen la. ma jël siwaat boo gisee gaa yi ragal ko hmm. mooy séen ci dara hmm. waaw waaw loolu lay affaire bi ndax ndax ndax oustaz ci làkk woowu nga wax damaa dégg président Idriss Seck mu ne gannaaw buñ ko déposé ba noppi ña koy saytu dañuy tëju te buñ paree man nañ caa génne yu leen neex ne wala bulut mm. te itam dañ lay wax ne amoo sens recours kon loolu ay ndëgg sërëx a ngi ci. <laughs> <laughs> na yàlla dimbali waaye. am solo la <laughs> xam naa il faut ñu ñëwaat ci loolu. incha allah waaw li ma ci naqari yaa ngi takk say bagage ndànk ndànk eh, boo muy tuut léegi tey nga kii waaye daal. tubarkal waaw. Euh, beneen bi ci topp oustaz ci kilifa yi nga xam ne jël nañ kàddu foofee ca barab ba. Mm. ministre bi nga xam ne moom lañ dénk biir réew mi ak suñu kaaraange ñun. waaw moom day tabaxi kaso la ñu dig yu bare wala boog astafurlaa tabax ay ay ay commissariat euh, ci biir dëkk bii daal nee na loolu dañ ko yokk wàllum sàcc xale yet nee nañ jàpp gun nañ lu ma junniy nit waaye nag junni nit ñi jàpp waxul ne ay sàcckati xale lañ mhm. waaye ñu ñu jàpp lañ ñoo xam ne ñu ngi leen di dégloo di saytoo ka xool mbir mee yooyu mhm. waaw oustaz ñun suñu am sécurité moom ci tabaxi commissariat la war a dellu wala fexe ba nit ñu nite la war a doon man de may ñëw maa ngi ciy waxtaan mm. ci yi mm. effectif bi baax am na ci solo. lu dëgg. Euh, jumtukaay yi man am na ci solo. waaye nit ki nga xam ne nag mooy taxaw di di di sàmm kaaraange nit ñi kooku def ci am solo. loolu la. mbir yu am solo lay doon. mooy effectif bi baax juntukaay yi baax. bu ko defee ki taxaw di ko def baax. Euh, ci ja sàccum xale yi suñu mbàkke moom borom tollu ci. Mhm. ministre bi yor wàllu xale yi ci mbedd mi. Mhm. dañu am am daje maak moom. Mhm. ak yeneen ustaas ñu ne leen nañ proposé ni ñuy jëlee xale yi ci mbedd bi gis nga loolu lu lu lu lu war a yomb la sëñ Mbàkke fexe ba du sàcc xale yi lu war a yomb la donc aw yoon a ngi nii boo ci jaaree nun ñëpp war nañoo mën a nekk ci ci jàmm yoon wi ñu jaar mooy dañuy fexe ba kenn du nangu ku ko koromp ci bedd bi télé bi bu ci nit jëlee corruption rek aw mille francs wala nàngam rek day daal di système bi yëpp lay làmb mm-hmm. mooy ku si da ngay defe ne mooy nga joxoon xaalis mm-hmm. am déet mm-hmm. loolu loolu rek lay tekki dëgg la donc yëf yi am na solo lool waaye nag effectif bi daal bu amee euh, juntukaay yi am na nu fexe ba kii taxaw nag di aar nit ñi moom tam mu doon ku ñu koo xam ne kii ku am euh, pëns la ci li muy def nga xam ne xel xalaatu di di ko jéem a def dara waaw lay ndeysaan am na solo oustaz jërëjëf ci tomb bu am solo boobu ginnaaw bi ñu noppee ci loolu bala maa dalal gan ñi dinaa dem nag ci suba ci àjjuma ji nga xam ne moom lañ dëgmal mhm. atep euh, maire de dakaar xalifa Sall nga xamante ne moom it bañ ko sumbee ba léegi yàgg na mhm. rukkee nañ ko boor bu nekk mhm. ba suba lañ war a wax ne daal bu doon wol dañ naan tees na ñu war a wax nag euh, ndax dañ ko yeewi mu ñibbi wala dañ ko naan téye nañ la fi ba baram ba àpp sàngam suba daal lañ war a jeexal ab atteem loolu noo ko jàngatee ak loo ciy xaar waaw <laughs> lu jafe la nag ndax ginnaaw suba la kii àtte ne na dem ñibbi wala na dellu fa mu nekkoon mm-hmm. euh, buñ ko jiitoo ci mbar mi muy lu mm-hmm. waaye daal sëñ Mbàkke mm-hmm. xam naa ne fexe ba penc mi dal am na solo ci àtte fexe ba penc mi dal na solo ci àtte dank fanaan li it war na war nay num tëdd ndax nit ñaa dank fanaan la suba lañ koy bàyyi ñu naan bu subaa duñ ko bàyyi bu bu mi amoon moom day wax rek léegi na ñii bañ a wax ñii bañ wax ñu bàyyi rek. Mhm. luñ gis rek xam ne loolu lañ gis ndax dañuy wóolu suñuy attekat. Mhm. su boobaanu noonu lañ koy defee. yi mhm. tam ñoom tam bu buñ gisee ne loolu la nu nu atte ci lu leer ne ko dem la nga ñibbi. suñ gisee ne leneen la tam. loolu nu xam ne leneen la mm-hmm. waaw mm-hmm. li ñu ñaan nag nun ñëpp mooy sunu borom nag yàlla na ci def tawfiq eh, faraja anhu mm-hmm. eh, mu dal ci njabootam loolu man naa mën naa am te su boobaa itam defe naa ñi ci wax lu du déedéet du bari lool. waaw tubarkàlla kon daal kon daal àtte bi ñu xaar rek ba xam fan la wànneen di mundee eh, di mujjee ki gëtam mujjee ki gëtam waaye jamono ji ñu koy àtte ñu ne àttekat yi dañoo ne ci grève loolu itam noo ko jàngate man de mos naa ci dara tey ji nag ndax xëyoon naa fa xëyoon nga fan fa àttekat yi nekk mhm. di wuti kayit ñu waaw ma huit heures ma mhm. ba neuf ñu ne ma dun dem leen ba mardi waaw dañoo grève mu koy mos nañ ci dara dañoo grève waaw xam naa àttekat mm. fajkat mm. jàngalekat mm. mbàkke danoo war a fexe ba seenu xeet bëgg leen wóolu leen àttekat fajkat jàngalekat bu leen seen seenu xeet fonkee wóolu leen bëgg leen hmm. lu ñu ne lu ne mën nañ koo def waaye bu ñu leen wóoluwut nu leen suñ bàkki lu ñu def ñu ne du noonu hmm. waaw hmm. tabarkalla muy lu yéeme encore lu yéeme en tout cas oustaz atta bi mi ngi noonu dëkk bi itam euh, sécurité bi fi mu ne xam naa xawma noonu laa koy tudde wala policiers yi bari nañ fi waaye daal rond point yi fees na dell ci ñu kagulu moom bu ñu la rombee da nga naan waaw baa du ñun daa am lu fi bëgg a xew ba gars yi di kii rek sama classe nga xam dañoo ragal ko sol tëli moom dañuy jaaxle ba loolu kiimaan la jenn waaye daa ñibbi si këram Euh, am 48 heures jabar ji gisu ko. waaw foo nekkoon mu ne ko tuddal yàlla te sant ko. ndax borom wëtiri tant yi ñoo ma jël ñoo ma jëloon. <laughs> xam nga foofu coolo na ko yàlla na yàlla boole dimbali amin yaa rabbal alamin alhamdulilah amin jërëjëf oustaz jërëjëf kon mbokk yi ñuy déglu actualité bi xam naa foofu lañ ciy teg suñu baaraam jéem a dalal gan ñi nga xam ne ñoom la ñu war a dalal incha allah ba noppi kon bu leen toxal si nag déglu fañ jëm duñ fa yàgg suñ mbàkk di jël gan ñu indi leen rek ñu daal di wéel waxtaan ضحوا بالنفس وبالمال يا قومي دين الرحمن يحمله في الأرض ومن kon ci ñaareelu xaaju jotaay bi la ñuy duglu ginnaaw bi ñu noppee ci xibaaru daara ji war a dalal suñ gan ñi ni nga ko waxee euh, oustaz Mouhamed Mansour Ndiaye ak ki nga xamante ne mooy Cheikh Ibrahima Sarr. Touba euh, TV euh, <laughs> ak Cheikh Ibrahima Sarr ak Cheikh Mouhamadul Amin Diop ñoom lañ ñu war a seqal waxtaan wi oustaz incha allah. kon kon ni ñu koy baax a jëlee suñu bàkk rek bu ñu amee gan. Euh, laaj leen laaj bu njëkk. incha allah laaj leen laaj bu njëkk ba noppi. lu jiitu ñuy laaj laaj bu njëkk bi dañuy jox sëñ Mansour mu nuyoo ak auditeurs yi sëñ bi salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah oustaz Mbacke ñu ngi lay nuyu di la ziar di nuyu di ziar suñu kilifa al oustaz Alioune Sall di ko jox wàcc waayam di am mbégte ak kontante itam di janoox sama mbokk al oustaz Mouhamadul Amin Diop ak al oustaz Ibrahima Sarr. di nuy itam euh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy njiitu coordination des associations et mouvements islamiques du Sénégal waaye itam di nuyu képp koo xamante ne rek mu ngi topp émission bi si biir réew mi ak bitim réew. Mhm. sëñ Mbacke. jërëjëf jërëjëf sëñ Mansour ci nuyoo bu am solo boobu Cheikh Ibrahima saar asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Euh, Oustaz Ali sëñ Mbacke ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziare di nuyu tamit ñi nga xam ne ñooy seeni auditeur ak képp koo xam ne mooy suivre émission ba am solo bi nga xam ne ñu bari ñu ngi ci jariñoo du kilifa kilifay réew mi ak kilifay àdduna yi ak suñu kilifa yi nga xam ne ñoo ñu yebal fii. Mhm. fa ahlan wa sahlan. jërëjëf jërëjëf oustaz Ibrahima Sarr Cheikh Mouhamadul Amin Diop asalaamualeykum. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu oustaz Mbacke ñu ngi lay delloo nuyoo bu gën a sell. Eh, di jagleel nuyoo tamit fa mu gën a sellee ci sunu kilifa oustaz di am mbégte janoo moom. Euh, di nuyu tamit mboolem kilifa yi nga xamante ni ñoo nekk ci réew mi jiital ci kilifa diine yi ak kilifa aada yi di beral tamit nuyoo di jagleel ñi nga xamante ne ñooy safoo di déglu li nga xamante ne mooy émission Al ci biir réew mi ak bitim réew di nuyu tamit euh, kilifa yi nga xamante ne ñoo ñu yabal fii nii di leen wax ni euh, asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu. jërëjëf euh, waaleykum salaam Oustaz Mouhamed Lamine Diop Oustaz Ibrahima Sarr ak Cheikh Mouhamed Mansour Ndiaye Oustaz kon mbokk yaa ngi noonu nuyoo nañ ba noppi ma bàyyi la nga dugg ak ñoom ci waxtaan bi. dugg ak ñoom ci waxtaan bi jërëjëf sëñ Mbacke jërëjëf mbokk yi déglu xanaa waxtaan bi ma laaj bu njëkk bi rek mooy lu doon luy seeni tànk fii ci Sud seen rajo. ay salaamaaleykum wa rahmatulah. min jadid comme ni nga ko xamee euh, dafa am kuréel goo xamante ne mu ngi tudd kamis muy coordination des associations et mouvements islamiques du Sénégal euh, ñu gën ko miin ci arab tansiqiyatul jamaiyat wal xarakatul islamiya fi Sénégal mu nekk kuréel goo xamante ne euh, dafa lëmbe dafa ëmb képp koo xamante ne mouvement islamique la bu nekk ci biir réew mi. Euh, ginnaaw bi ñu sentir ne liggéey si toolu lislaam bi. Mhm. dafa jot ñu joxante loxo. Mhm. ku si nekk euh, jiima tàllal sa moroom loxo ñu liggéey lislaam si biir réew mi. Mhm. ndax gis nañ ne lislaam euh, fi mu toll dafa tumuranke te àdduna bi gis nga foo toll rek ñu ngi joxañ tuuma lislaam tey it jullit ñi yaakaar naa ngir ñu mën a jàmmaarloo loolu mooy faw ñu bennoo nekk benn. Mm-hmm. si la njiit yi euh, sentir ne kat jot na sëkk ñu joxante loxo. Mm-hmm. ngir liggéeyal lislaam si biir réew mi si anam bi nga xamante ne moom mooy anamu digg doom waaye itam dajale képp koo xamante ne rek acteur nga. Mm-hmm. bu ko defee ñu joxante loxo liggéey si lislaam loolu nag moom moo waral tey ñu daje fii. ndaxte itam ump leen ne euh, coordination boobu mu ngi sosu depuis 2013. ba amaloon nañ am ndaje mu mag fële si stade Amadou bari Euh, mu lëkkale jamaat Ibadu Rahman ak euh, mouvement Al Falah ak daaru istiqama ak rassemblement islamique mhm. du Sénégal muy RIS Al Wahda mhm. euh, te incha allah comme ni ngeen ko gisee woon rek ay weer si ginnaaw décembre bi passé amaloon nañ itam beneen boo xamante ne ñu ngi ko defee woon si stade Amadou bari boobu mhm. waaye nag ñoom it ñu fas yéenee gën a yaatal mbir mi mbax ndax Euh, yaakaar naa ndaw ñi wala sax waxambaane yi. dañu nekk benn pilier boo xamante ne bu essentiel la si liggéeyu lislaam mhm. ba tax ñoom ñu joxe ndigal ne kat ndaw ñi faw ñu boole leen si liggéey bi. Euh, ñuy sàkku si ñoom ñuy taxawal mbir mu ni mel année bu jot. Mhm. yàlla dogal ren moom mooy année bi nga xamante ne moom moo si jiitu ñu fas yéenee taxawal mbir mi loolu moom mooy suñuy tànk fii. bu ko defee ñu gën a leeral sénégalais yi si lii ñuy dox lan la ak lan moo si suñu objectif ak njariñ li nga xamante ne moom moom la am. moom ngeen ji séentu. jërëjëf Hadj Mansour tabaarkallaahu Touba TV ñu ngi lay bëgg baax baax di la ñaanal tawfiix ak di la seetaan ak topp ci euh, xanaat boobu ci wàllu journal al arabia bi nga xam ne moom nga fay def. Oustaz Mbacke moom bàyyi la nga laaj mbokk moom itam ndax dafa am lu muy teg ci. Mhm. Uh-huh. jërëjëf euh, Oustaz Mamadou Mansour Cheikh ma Sarr. Euh, kon dégg nañu oustaz Mouhamadul Mansour ginnaaw bi mu ñu xamalee xamal auditeurs yi li fii seen i tànk mm, muy mbootaay googu nga xamante ne ca ngeen bokk ñu yabal leen fi ngeen di waxtaane la ko tax a jóg ak yi nga xamante ne ni moo aju ci liggéey boobu mm. fi sëñ Mansour daaneele rek lañ lay joxe kàddu gi euh, yow itam nga gën cee indi li nga xam ne moom nga ciy yokk lu jiitu ñuy ñëwa ak yéen ci laaj yi ci aju waaw comme ni ko Cheikh Mansour waxee euh, liggéey bi comme que association yooyu mu tudd ñoo ci jiitu ak ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi ci yoon di ñëw léegi nag ñu gis ni comme que ndaw moom dafa nekk lu am solo ak jigéen ñu beral leen tamit ñoom it seen activité ci yu am ci at bi bii nag war a nekk bu njëkk boo xam ne mooy pour jeunes yi parce que jeune moom yaakaar naa ne moo ëpp solo ci dund moo tax ñu bëri wax nañ ci arab nee na al ittihaadu quwwa français nee na l'union fait la force mm-hmm. euh, Euh, ñeneen wax nañ ko wolof ni bennoo. Euh, euh, nu ko waxatee sax. ne bennoo mooy doole. bennoo mooy doole. <laughs> kon su ko defee li ñu def nii ñoom ñëpp ku nekk yor sa mbooloo di liggéey ci côté ñu dem ba jamono ñëw ñu gis ni dañoo war a lëkkaloo parce que liggéey bi yëpp daanaka bu sottee résultat bi benn njariñ la mooy lislaam a ci amee ndam. te seen liggéey bi tamit daanaka objectif final bi mooy jéem a jàppale nit ñi ginnaaw bu ñu jàppale suñu bopp ñu jéem def loo xam dinañ ci am ngërëmu suñu borom tabaaraka wa taala mën a am tex ak àdduna ak alaaxira léegi nag comme que bennoo boobu dafa am solo waaye ndaw tamit nekkaat lu am solo tax ñu beral ko seen liggéey moo tax tey jii ñu jël ndaw ñi bëgg ñu commencé at bu jot bu fekkente ni semaine bi ñuy daj jegleel ndaw ñi ci réew mi jot na ñoom it ñu bay ci seen waar ci seen façon bi nga xam ne moom lañ koy defee loolu moo waral tay ñu suñu activité yi tax ñu ñëw fii pour yëgal ko ñëpp pour ñu xam ne daal lu am solo lañ ca jublu waaye tamit jàppale mbokk yi rek ak jàppale suñu bopp moo tax ñuy woote incha allah tabaraka mhm. wa taala lu am solo la Cheikh Ibrahima jërëjëf sëriñ Mouhamadul Amin Diop yow la ñuy jox kàddu gi mbokk yi kon joxoñ nañ ne euh, mën nañoo wax ne ndaje moomu ngeen dëgmal euh, maanaam ndaw ñi ñoo ko tax a jóg mhm. euh, ñooñu maanaam ndaw ñooñu lan ngeen seetlu wala lan ngeen yëg ba yëg ne war nañoo mën a jublu ci ndaw ñi ba tax ngeen jagleel leen bis boobu. Mhm. jazaakumullahu xayran Euh, dañoo seetlu que ni euh, benn waxtu bi nga xamante ni tànn nañ ci dañ ciy taxaw muy semaine nationale de la jeunesse mm-hmm. bi nga xamante ni ay bis yi ñu jagleel ci réew mi pour ndaw yi ndaw yi réew mi mm-hmm. ñu gis ne euh, ñun en tant que ay acteurs ñoo xam ne ci biir société bi lañ nekk ndaw ñi nekk ci benn pilier boo xamante ne bu ama am solo la mm-hmm. ñu jàpp ni ñun kenn waruñoo gën a mën a bay sunu waar ci biir li nga xamante ne mooy réew mi kenn gënuñoo mën a taxaw taxawaay boo xamante ne mooy jëriñ li nga xamante ne mooy réew mi parce que euh, li ñu lislaam jàngal mooy innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidna hum huda wa rabatna ala qulubihim id qaamu fa qaalu rabbuna rabbu samawati wal ard lan nad'uwa min dunihi ilaha laqad qulna idan shatata bi maanaa toujours ndaw jullit bi bu fekkente ne gëm na yàlla jaamu ko moo war a njëkk jëriñ li nga xamante ne mooy société comme ni nga xamante ne noonu la ko Yuusuf waxee woon ijalni ala xazaini l ard nga xam ni compétence yi nekk ci biir ndaw mi faw ñu orienté ko mu xam ne ki mu war a njëkk a jëriñ mooy réewam loolu moo tax kilifa yi tànn ba ñu toogee xool ci situation bi réew mi di nekk xam ne àdduna fi mu toll nii commencé na fëq ay ndaw ci turu diine mais fëkk leen ci loo xamante ne dafay jur loraange ci askan wi te lislaam doonul woon loolu moo nekkoon jubluwaayam moo tax mu ne naa jéem a fagaruwaat yaraat ndaw ñi ci li nga xamante ne mooy digg dégg-dégg euh, bu digg doomu bi nga xamante ne moom la ñuy tuddee alwasatiya nga xam ne bu boobaa dinañ xam lislaam xam ne lislaam dafa ñëw rahmatan lil alamin dafa ñëw pour développer li nga xamante ne mooy société bi loolu nag mënuñu koo am ci foo xamante ne ay pàcc-pàcc la moo ñun ñi nga xamante ne ñooy ndawi réew mi nekk sëtu mag yi ñu baax ñi nga xamante ne ñoo jaar ci réew mi faaw ñu joxante loxo pour que mën a jëriñ réew mi pour Sénégal mën a am li nga xamante ne mooy ndam jàngalewaat tamit beneen beneen beneen vision que ni semaine euh, nationale de la jeunesse nekkul pàkkar ñeeg euh, loolu rek la ci ndaw mi mun a jëriñee li nga xamante ne mooy réew mi mais am na yeneen yoo xamante ne ndaw mi mun na nekk ndaw am kàttanam am xam-xamam ba pare jëriñ réew mi te du nekk ci li nga xamante ne mooy pàkkar wala nagar wàlle lu am solo la oustaz jërëjëf jërëjëf oustaz Mouhamed Lamine Diop oustaz waaw xanaa ñu dellusiwaat kon ci Mouhamadul Mansour. Mhm. Euh, laaju ko léegi euh, comme ndaje mi jàpp ngeen day am. Mhm. Euh, ngeen bëgg koo daje. Mhm. ndax da ngeen daje rek def conférence dem. ndax da daje rek def benn table du dem. wala lu ngeen lu ngeen bëgg a wooyee nit ñi bu leen wuysee lu ngeen leen di jox. waaw oustaz loolu nekk ne question bu xa boo xamante ne bu ama am am solo la. Mhm. yaakaar naa ku oo nit di nga am loo ko jox. Mhm. te ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñu óolu ba dénk ñu liggéey bi. Mhm. Euh, yàpp nañ ñu bu baax a baax a baax si wàllu woowu. ba tax na suñu liggéey dañu ko sédd woon si ay commission yu bari. Euh, ba am na si sax commission boo xamante ne moom moo yoroon lépp si wàllu li nga xamante ne moom la ñuy yabee nit ñi bu ñëwee. Euh, ñu tànn thème boo xamante ne thème bu am solo la muy la jeunesse un pilier essentiel au développement de la nation. Mm-hmm. muy maanaam ndaw ñi nekk ab banqaas bu am solo si suqaliku réew mi. Mm-hmm. Euh, bu nu waxee euh, semaine de la jeunesse yaakaar naa boo xoolee comme ni ko al oustaz Mouhamadul Amin waxee. Mm-hmm. ñu bari dañu jàpp ne rek ay fête la yoo xamante ne den si pàkka ñi musique fecc fàtte li nga xamante ne moom mooy lii essentiel. te ndaw ñi ñoom ñooy yor am réew. léegi nag ñun ñu bëggee indi beneen vision boo xamante ne bu am solo lay doon. Mhm. boo xamante ne cëslaayam lislaam lay doon. Mhm. waaye itam dina bàyyi xel réew mi. Mhm. parce que itam boo xoolee toujours fii si Sénégal ni ñu ko baaxoo. dañu jàpp ne ndaw ñi nga xamante ne ñoom ñoo tënku si diine. si diine rek la ñuy wax. alors que diine bàyyiwul dara. ñun war nañ mën a def benn participation mu jëm si wàllu réew mi waaye itam jëm si wàllu pénc mi. loolu moom moo tax ñu tànn euh, thème boobu noonu. bu ko defee bu ndaw ñi ñëwee ban dajaloo foofu. ñu jàngat thème bi indi benn kàngam bu mag boo xamante ne dinañu si jox ay orientation waaye itam buñ paree dinañ si génnee ay résolution yooyu noonu incha allah moom la ñuy séddale ndaw ñi. bu ko defee gël leen a ñaax si ñu gën a bëgg réew mi. waaye itam gën leen a ñaax si ñu xam àq yi nga xamante ne moom leen amee réew mi ñu koy joxe. bañ a euh, ta bañ a tayale seen bopp rek maanaam li nga xamante ne moom mooy lépp luy yàq temps. Mhm. wala sax si loo xamante ne amul njariñ. Mhm. parce naa ñun. ay ndaw lañ yoo xamante ne ñun ñoo war a taxawee suñu réew si dëggi-dëggi taxaw mm-hmm. parce que dañuy wax ne ashabab ñoom ñooy amalul xad mm-hmm. maanaam ndaw ñi ñoom ñooy yaakaaru ëllëg mm-hmm. te it moom mooy banqaasu lislaam te mooy banqaasu société di banqaasu développement kon yaakaar naa war na si réew mu nekk mu gën a jox li nga xamante ne moom mooy gëdd ay ndawam préparer leen tàggat leen te xam ne ñoom ñooy gàddu ëllëg flambeau bi si yoon woowu la ñuy dox ba tax na itam tànn nañ ay thèmes yu bari yoo xamante ne war nañ si tàggat ndaw ñi bu baax a baax a baax. Mm-hmm. loo xamante ne dina dolli si seen wàllu spiritualité. Mm-hmm. waaye itam si seen wàllu àdduna ba nga xamante ne buñ jógee si colloque boobu incha allah dinañ santi ne kat ñoom ñu war a bokk bu baax a baax lañ si développement société bi. Mm-hmm. waaye itam ñu war a gàddu flambeau islaam lañ si juste milieu mooy comme ni ka Oustaz Mouhamadul Amin waxee si al wasatiya wal i'tidal. Mm-hmm. Hadj Mbacké am na solo sëñ Mansour Kamis moom euh, ñeenti association yi rek la lëkkale muy jamaatu Ibadu Rahman al Istikhama al Falah ak RIS wala am na yeneen yu ci bokk. waaw Kamis si tàmbali gi euh, yaakaar na si tàmbali gi ñi ko sosoon mooy jamaati Ibadu Rahman ak euh, mouvement al Falah ak Daaru Istikhama. Mm-hmm. waaye bi mu demee at ak ñaari at si la rassemblement islamique ñëw. donte nag fi mu ne ñu ngi gën a yaatal mbir mi parce que itam am na yeneen mouvement yoo xamante ne wane nañ seen. cofeel si adhéré si kamis te it incha allah yaakaar naa du yem foofu rek bëgg nañ bépp mouvement islamique boo xamante ne mu ngi si biir réew mi di liggéeyal l'islam nga ñëw ànd ak ñoom si liggéey boobu parce que itam comme ni ma ko waxee si njàlbéen gi l'islam fii si biir Sénégal dafa aajowoo ñu coordonné liggéey bi. Mhm. ku si nekk nag am nga say agenda yoo xamante ne say agenda particulier la yaa ngi koy liggéey au niveau si sa jamaa. Mhm. waaye nag am na loo xamante ne moom moo ñu boole. Euh, te gis nañ ne euh, jéng yi yi nga xamante ne parfois moom mooy tënk nit ñi si wàllu association. Mm-hmm. am na si yoo xamante ne mënul teye ñun ñëpp ñu booloo liggéey lislaam ndéem lislaam rek moom moo ñu ñor. dëgg la léegi nga xam ne kamis moom nekkul ab association. non du euh, du association mais. ab kuréel la boo xamante ne dafa lëkkale liggéeyu association yëpp di ko coordonné. dafa liggéey déet bul ne association yëpp dafa lëkkale ñeenti association yi kon seenub liggéey di ko coordonné. ñeenti association yi ak yeneen yoo xamante ne ñu ngi waaj a. <laughs> tubarkalla ah, baax na bu ñëw ci ci bëri ñeenti association ak yi waaj ñëw. ak yi waaj ñëw maanaam yi waaj ñëw di bëgg nañ ñu firi ñu ko. <laughs> yi waaj ñëw lu muy tekki maanaam tëju leen bunt bi wala da di dem jëli ñeneen ñi wala ku am association day ñëw ni leen dama cee bëgg a bokk. maanaam Kamis dafa nekk association boo xamante ne wax dëgg yàlla tëjalul buntam kenn. ah wax ne Kamis amut ay kayit ak yooyu kiiwut ba pare ne Kamis dafa nekk association boo. xam coordination. maanaam kuréel la boo xamante ne dafa lëkkale maanaam day coordonné bañ nañ ko ba coordination dañ ko liggéey. Hmm. maanaam nekkul association boo xamante dafa ñëw ngir nekkaat lu bee si association islamique yi. Hmm. mais dafa nekk kuréel goo xamante ne dafa fas yéenee ëmb lépp rek loo xamante ne association islamique la. Hmm. bu ko defee gën a yombal liggéey bi. gën a rataxal diggante yi gën a miinantal itam yëf yi gën a harmoniser li ñuy wax al amal al islami muy le travail islamique. d' accord am na solo oustaz. waaw sëñ Sarr lay bëgg a ci moom. léegi comme gars yi. kël nañ ñu ay joxoñ bañ xam mbooloo mi. Hmm. léegi léegi fan ngeen di woo nit ñi nu ngeen leen di wooye ak ci ban euh, anam ak ci ban tàng ban heure ngeen leen di woo. bisimilah sëñ Sarr. waaw liggéey bi nag dafa séddale ko ci ñaari bis. Mhm. muy samedi le 31 mars 2018. Mhm. ak dimanche le premier avril 2018 ba tey. Mhm. waaye bu dee liggéey samedi moom barab ba muy amee mooy fële ca alkulliyal ifriqiya li dirasat al islamiya foofu nag ñan fa soxla mooy association bu nekk dafa am lim buñ ko jox boo xam ne moom la war a teewal. ci ay membre am. ñu war a ñëw commencé ci 9h ci suba. ba 23 lépp ci ay liggéey moo xam. conférence la taabaruloon ay atelier ba heure boobu jot ba nañ sax góor ña fanaan fa bu ñu xëyee suba ci dimanche ji continuer suñuy liggéey mm-hmm. bu dee ci ngoon gi ci dimanche gi nag ci lañ woo ñëpp public bi ñëpp pour ñu ñëw daje fee ci ECAT de ci université Cheikh Anta Diop mm-hmm. ci thème boobu nga xam ne moom la Cheikh Mansour tuddoon léegi muy ashabab rakizatun asasiya fi tanmiyatil fi tanmiyatil watan mm-hmm. ndaw ñu nekk ab sukkandikukaay bu am solo a développer sam réew da nga ciy sukkandiku parce que dañuy wax ne ashabab imaadul umam waaw ku bëgg sama réew jëm kanam foog nga bàyyi xel bu baax ci ndaw ñi loolu moo tax ñu tànn thème boobu mm-hmm. kon daal ñun ñu wane daal ñun suñ participation foofu lañ ko jëmee mm-hmm. waaw jëmewoon ko rek ci ay ndagar wàlleeg ni ñu koy waxee comme <laughs> waaw. am na solo am na solo am na solo kon su ma la déggee ci ndajem samedi mi moom woowuñu ci ñëpp. déedéet ñu ñeenti association yi lañ ca woo euh, maanaam tànn ca ñoom it ab lim ngir ñu daje. du ñeenti yi kese. <laughs> association yu bari la ku ci nekk quota bu quota xaw ma quota la ñu. quota quota la jox boo xam ni moom nga war a indi. kon du ñeenti association yi rek dañ cee gën a ràññeeku rek cee gën a waaye ñu hmm. ñu bari lañ ci boole ñoo xam ne daal. Hmm. nombre ba dina jege deux cent personnes incha allah. léegi atelier booba la ngeen fay waxtaanee dafa soxal confrance bi am dimanche wala leneen lañ fay waxtaanee. yeneen thème la. yeneen yeneen la bokkut ak conférence dimanche bi. thème yooyu du thème yu ñëpp bokk moo tax ñu tëju wala. xam naa sëñ Mansour dina ci mën a gën a leeral. dina ci euh, c'est-à-dire euh, activité bi. Hmm. Euh, lu nit mënti wax dina gis ni ci biir Sénégal kuréel yi nga xamante ne ñooy liggéeyal lislaam bari nañ. Hmm. mais luy boole seeni effort pour mu nekk loo xamante ne lu lu société bi di gis njëriñ bi loolu moo desoon. Mm-hmm. Euh, certes boo xool ci les années quatre vingt quatre vingt dix mooy biir euh, saxwal islam yu juddoo ci Sénégal. Mm-hmm. loolu manqué woon na. léegi nag àdduna dafay dox. Ah, mooy saxawal islamique. Euh, mooy éveil islamique. ba tey ba tey dégguma ko di. <laughs> mooy lan ba tey mooy yeewute ah, yeewute gi nga ah, xamante ni. <laughs> li ngay làkk moom. <laughs> gi nga xamante ni moom la euh, diine ji am ci biir réew mi. nga xam ne mm-hmm. ñëpp jubluwaat ci gën a xam seen diineeg loolu. Mm-hmm. léegi àdduna ni muy doxee dañuy wax ne àdduna bi fi mu toll nii dafa nekk àdduna joo xamante ne tungu ne amul ci place. bi maanaam laa laa majaala lil aqzaami fiiha àdduna mm-hmm. la boo xamante ne nit ki da ngay am taxawaay ba pare lëkkaloog ñeneen ñi pour nga mën a pour nga mën a nekk mm-hmm. léegi nag loolu moo tax ñu ne nañu fexe ci ndaw ñi Euh, mbooloo mi nga xamante ne moom la ñuy woote dimanche woo nañ ci plus de li nga xamante ne mooy vingt association ndaw ci biir réew mi mhm. xam nga dañuy wax ne wàññi booy gis ci benn lay tàmbali mhm. te ab gëm-gëm boo gis dafay am ñoo xamante ne ñoo koy porter mhm. pour mën a convaincre ñeneen ñi woo leen ci li nga xamante ne mooy ngëm-ngëm googu ngëm-ngëm gi ñu am moo di ñun en tant que ay ndaw yoo xamante ne dañoo gëm koosuk lislaam ne moo mën a defar li nga xamante ne mooy pénc mhm. doomu aadama munta jëriñ askanam munta jëriñ péncam bu dul bu fekkente ne dafa leeruk lislaam dafa nekk ci moom mu si lay doog a mën a jëriñ li nga xamante ne mooy ab société mhm. afa man kaana maytan fa axyaynaahu wa jaalnaa lahu nuuran yam bihi fi nnaasi mhm. kaman mathaluhu fi dhulumaati laysa bi xaarij minha kon loolu bu fekkente ne dañ ko gëm en tant que ay ndaw dañoo war a joxante li nga xamante ne mooy loxo te loolu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam symbolisé woon bi mu indee huda bu leer nañ ñëw taxawal li nga xamante ne mooy société Médine la mu njëkk a def moo di ne wax ñi nga xamante ne moom mooy ñi nga xamante ne mooy almuhaajiruuna wal ansaar pour que lislaam gi nga xamante ne moom lañ ñëw mu nekk rahmatan lil alamin faawu ngeen joxante loxo lool moo tax ba yonent bi taxawalee cadre bu nit ñi di jaamoo yàlla subhaanahu wa taala dafa daal di dajale seen diggante mooy aaxa bayna almuhaajirina wal ansaar mm-hmm. walladina tabawwa'u ddaara wal imaana min qablihim fi sudurihim xaajatan mimma utu wa yu'thiruuna ala anfusihim walaw kaana bihim xasaasa léegi nag loolu moo tax ci li nga xamante ne mooy samedi bi gëm-gëm la mooy ne musta am d'habitude fii nii ci Sénégal da nga daan gis ne yeneeni ONG ñooy ñëw jël ay ndaw ci ay kuréel boole leen mm-hmm. mais bii nii kilifa yi ñoo gis ne ñun sénégalais yi waruñu xaar keneen di ñëw di ñu boole ñuy àndandoo di nasandoo di nocceendoo mm-hmm. ñun ñoo gën a xam li nga xamante ne mooy Sénégal mm-hmm. ñun ñoo gën a xam li nga xamante ne mooy réew mi kon dañoo war a jël suñuy ndaw boole leen ñu toogandoo di xalaatandoo luy jëriñ seen réew mm-hmm. première li nga xamante ne mooy samedi bi lañ fay waxtaane mooy euh, tey jii nii al wi tanmawi euh, euh, projet développement wu réew mi nga xamante ni moo tax lii de association islamique yi ñu ñëw ñoom oustaz Alioune Sall ñoom oustaz Ahmad Dam Ndiaye ñoom oustaz Malick Ndiaye rahimahullah ñoom oustaz Sidi Khalilo ñoom oustaz Ibrahim Khalil Marega ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen oustaz Mahmoud Ba ñi fi jaar ñëpp nga xamante ni lañu doon samp dafa nekkoon pour développer réew mi loo xamante ne réew mi dina am njëriñ ba yàlla subhaanahu wa taala mission bi mu bëgg nit ki mu amal ko ci kaw suuf dina ko am hmm. léegi nag ñoom ñu xamal ñu mashru boobu lan moo ciy taxawaayu ndaw ñi ñaareel ba mooy dinañ amal atelier boo xamante ni lañ cay waxtaane mooy ne ña fa tase di ñaat téeméeri li nga xamante ne mooy nit jóge ci ay kuréel yu fasantikoo ñun ñëpp ñu am ku ci nekk sa yitte mooy na sénégalais yi gën a dund seen lislaam ndax ñu gën a mën a jëriñ réew mi mm-hmm. léegi nag effort yooyu ñuy def nan la ñuy fexe ba tansiir euh, euh, lëkkale. Mm-hmm. li nga xamante ne moom mooy suñuy suñuy effort yooyu ba am résultat boo xamante ne bu baax la euh, loolu mm-hmm. mooy am ci li nga xamante ne mooy samedi bi mm-hmm. nga xam ni dafa nekk tàmbali boo gis ne ci benn lay tàmbalee mais incha allah suñu mbébét moo di ne ñu dem ba li nga xamante ne mooy mu nekk benn journée boo xamante ne wala semaine boo xamante ne dafay dajale ndawi jullit ñi ci biir Sénégal yépp incha allah. oustaz. waaw dafa mel ni bu ñu dellusiwaatee ci xaaj Mansour Ndiaye. Mhm. Euh, wax nañ ñu ne mbooloo maa ngi gane àdduna 2013. mu mhm. bëggoon mu wax ma ci ay injaazaatam lu war a mat ñett ba ñeent yàpp juróom. Mhm. maanaam lu ngeen defagum. waaw oustaz euh, alhamdulilah loolu tamit nekk na question boo xamante ne am na solo lool. Mm-hmm. Euh, comme ni nga xamante ne coordination euh, des associations et mouvement islamique si lay dox. Mm-hmm. maanaam dafa nekk mbootaay goo xamante ne comme ni ma ko waxee woon sànq rek day gën a lëkkale jaami yàlla yi si biir réew mi. incha allah activité bi nga xamante ne moom la ñu njëkk a amal mooy comme ni ma ko junjee woon sànq mooy stade Amadou bari lañ ko defee woon. Mm-hmm. mu dajale woon mouvement islamique ak ndaw ñëpp. doon fa waxtaani itam loo xamante ne lu jëm na suñu wàllu diine ak suñu wàllu àdduna mm-hmm. waaye itam nekk na mbootaay goo xamante ne yamul rek si euh, mouvement islamique mm-hmm. waaye itam ubbi na buntam ba si ñi nga xamante ne moom la ñoom la ñuy dundal si biir réew mi muy tarixa suufiya yi mm-hmm. euh, ndax gis nga euh, li nga xamante ne moom mooy bunte yi nga xamante ne moom lay ubbi ngir gën a jokkaloo ak ñoom si luy gën a dëgëral mbokkoo gi awalan waaye itam si luy gën a dëgëral liggéeyub lislaam bi mhm. yaakaar naa am nañ ay taxawaay yu bari yoo xamante ne taxawee nañ ko si réew mi mhm. euh, di jokkaloo ak tarixa suufiya yooyu bi si mujj rek euh, mooy rahmatullahi alayhi Serigne Sidou Mokhtar Mbacke bi mu génnee àdduna mhm. euh, ñoom coordination boobu yebal nañ benn délégation bu mag a mag boo xamante ne docteur Taalambe nga bu jamaatu Ibaadu Rahman ak al oustaz Galajoka bu mouvement Al Falah ñoom ñoo jiite woon mbootaay bi pour rek euh, dindi li nga xamante ne parfois boo waxee turu mouvement islamique ñu bari dañuy jàpp ne rek mouvement islamique dañuy ñëw fas yéenee jël liggéeyub l'islam bi accaparé ko moomale ko seen boppa te yaataluñ ko. Mhm. waaye ñii dañu fas yéenee dox si loo xamante ne day boole jullit ñëpp. kon mu nekk loo xamante ne yemul rek si ñoom. Mhm. naka noonu itam amoon nañ beneen euh, nachat boo xamante ne beneen activité bu ñu defoon si euh, décembre bi passé. Mhm. doon fa waxtaanee l'homme et le développement l'homme al insaanu mihwaru tanmiyati fil fil fil fil islaama ah. mhm. euh, l'homme dama dama fàtte kii bi si tubaab mais noonu lañ ko tënkee woon maanaam nit ki moom mooy cëslaayu développement si am réew si mhm. si même sujet boobu ñun loolu leen bëgg continuer looloo tax ñun ñu tànn thème bi nga xamante ne moom mooy alshabab rakise asasiya fi tanmiyatil watan hmm. pour mu nekk genre prolongation si li nga xamante ne moom la moom leen tàmbale woon si stade Amadou bari hmm. loolu nag ay activité la yoo xamante ne dañ koy def rek ngir gën a euh, dëgëral hmm. suñu liggéey si biir réew mi parce que comme ni ma ko waxee sànq rek maanaam l'islam lañuy ñuy liggéeyal te l'islam ku si nekk am na yoon woo xamante ne moom nga koy liggéeyalee ñun nag dañuy tànn liggéeyalee ko si anam bi nga xamante ne dinañ si mën a dajale ñëpp Mhm. képp koo xamante ne rek yaa ngi see association di liggéey ñu gis ne kat yaa ngi sa agenda ñu respecté la sa agenda boobu waaye itam ñu oola si li nga xamante ni ñun ñëpp dëppoo nañ si mu nekk intére l'islam ak intérêt réew mi. Mhm. kon si cadre boobu si la jeune associé euh, kii kamis euh, di liggéeyee waaye itam si loolu leen dicté ñi nga xamante ni ñoom ñooy ndaw ñiy bootu si ñoom ngir ñu liggéey si waaye itam am na ay. injaazaat maanaam ay réalisation yu bari yoo xamante ne def nañ ko. Mhm. parce que itam wax dëgg yàlla gis nañ ne ndaw ñi bootu nañ bu baax a baax a baax te itam léegi am nañ kilifa bu baax a baax a baax. Mhm. xam nga tey boo jëlee tarixa suufiya yi. Mhm. ku si nekk tey par exemple boo jëlee tarixa murit kenn la ñuy déglu. bu waxee joxe ndigal bu boobaa ñëpp dañuy jëfee. loolu dafa manqué woon bu baax a baax ñi nga xamante ne moom mooy mouvement islamique. parce que itam yàlla dafa dogaloon. dañ daa liggéey si ay suufu keppaar yoo xamante ne ku si nekk am nga sa njiitu bopp. Mhm. waaye ginnaaw bii kami sosoo ba léegi gis nañ ne changement am na bu baax a baax. Mhm. ndax itam fitna dina dem bay bëgg yeewu si biir réew mi ñoo ñu buñ waxee loolu fay. Mhm. di tax seen seeni shabab maanaam di leen fexe di leen téye di leen naj bu baax a baax. Mhm. tey nit mën na wax dara koo xamante ne yow moom ngay déglu si sa wàllu diine daf ko muy sa référence. Mhm. amaana tey boo meroon mën nga def jéeye. Mhm. waaye gis nañ ne ñooñu kat bu nu waxee mbir mépp daal di fay daal di sedd. loolu ci injaazaat yi la bokk loolu si injaazaat la bokk. parce que itam réew mi toll woon na foo xamante ne itam. heure bu ne fitna mën na fi yeewu si ay kàddu yoo xamante ne nit ñi dañ koy waxante. mu nekk ay kàddu yu ñaaw. Mm-hmm. waaye itam gis nañ ne ñooñu bi ñu adoo wax dëgg yàlla am na loo xamante ne saafara na si. te mm-hmm. loolu injaas bu mag la parce que itam fexe ba euh, rey fitna soo xamante ne mënoon naa yeewu si am réew te bu tàkkee rek. ëllëg musiba bala moo xamante ne ñaanuñ yàlla kenn xamul fu mu mujjee mhm. yaakaar naa loolu moom wax dëgg yàlla nekk na lu ama am solo idaafatan si nachaat yi nga xamante ne moom la ñuy amal nii te di ko waaj a amalaat gën ko yaatal bi isnillah macha allah xaaj mhm. Bakke am na solo jërëjëf laa dégg li xaaj Mansour Ndiaye wax mhm. euh, bu ngay xoolee seen montre euh, waxtu waa ngi dem vingt-trois heures quarante-quatre jot na fii ci sama montre bi ma tiim nii mu bàyyi la ci laaj bi ci tege. am na solo oustaz laaj bu am solo nga ko laaj tontu lim ci tontu itam jotale lool ndax yooyu jamono soxla na ko. Mhm. waaye ci biir tontu li dama cee dégg mu tudd tarixa yi. Euh, yi nga xamante ne ñoom bokkuñu ak association islamique yi. Mhm. te kamis ñëw ngir boole. Mhm. moom ñan lay boole association yi rek lay boole nga ne ñi ñi ne ci tarixa yi te bokkuñ ci association yi ñoom seen yoon nekku ci wala nan la demee. ah kay ñoom si leen bokk. parce que kamis euh, ñoom dañu ne si seen euh, feuille de route. képp koo xamante ne acteur nga. si l'islam ji si biir Sénégal dañ lay boole si ñoom. Mhm. kon yamalewu ñu ko rek si association islamique xëy na nag ñoom si seen cadre bi nga xamante ne noonu la ñuy liggéeyee l'islam. Mhm. ñoom ñoo gën a dëppoo seen biir ngir liggéeyalee ko noonu. waaye itam teewul beddiwuñu kenn. parce que mhm. képp koo xamante ne acteur nga si biir l'islam bi te l'islam si biir Sénégal doo ko wax di bàyyi tarixa suufiyee si ginnaaw. wax dëgg yàlla liggéey nañ si liggéey boo am solo. te association islamique yi dañu ñëw ngir continuer liggéey bi nga xamante ne moom la fi mag ñi bàyyi woon. donc ñoom lii leen mag ñi terrassé loon rek si leen nekk ba léegi. Mhm. ñu bari dañuy jàpp ne nag mouvement islamique yi sax wala ñii ñuy tuddee parfois ay ibaadu. Mhm. dañuy ñëw ngir xeex mag ñi. Mhm. alors que ñooñu seen agenda loolu mos si bokk. ñoom dañuy ñëw ngir àggali lii fi mag ñi bàyyi liggéey boobu noonu. ñun si fas si loolu leen fas yéene continuer. parce que itam kamis dafa jàppane suñu mag ñi fii. ñoom ay patrimoine national lañ yoo xamante ne dañ leen war a sàmm bu baax a baax duñ xool dara loo xamante ne day tilimal seen der wala dara loo xamante ne day day day day tashwih li ñuy wax seen suma maanaam luy luy yàq seen déggital mhm. parce que itam réew mu nekk am nga say borom xam-xam mhm. te ñun yaakaar naa fii si Sénégal raflew ñu ay borom xam-xam am nañ ko bu mat sëkk mhm. waaye itam teewul dañu ubbeeku si tamit képp koo xamante ne rek yaa ngi liggéey l'islam si logique boobu la kamis di dem moo tax képp koo xamante ne rek yaa ngi liggéey lislaam si biir réew mi mu ñor la bunte yi ubbeeku na tënkuñu ko fenn seulement que nag dañuy coordonné hmm. coordonné coordination bi nag incha allah képp ku si fas yéene bokk rek bunte bi tijji na hmm. tijjeeku na hmm. tëjaluñ ko kenn gi foofu mën naa yokk benn ba mbir rek moo di ni euh, tariqa suufiya turuq suufiya moo gën a yaatu association association dafa dafa tënku. Mhm. c'est-à-dire li li tariqa mën a ëmb. Mhm. Euh, fekku ci association parce que association day am récépissé. Mhm. tariqa du am récépissé. tariqa mooy ndey ji nga xamante ni moo ëmb li nga xamante ni moom mooy mooy ñëpp mm. euh, xam ni fii lu ñu munti wax ci Sénégal euh, ak turuq suufiya dañoo am benn place boo xamante ni bu spécial ci ci ci ci mm-hmm. euh, lu lu mat lu mat a bàyyi xel cest à li li li li li jik li li li jik tariqa mm-hmm. mu amaana mun na am jikul li nga xamante ni mooy association ak mouvement mm-hmm. parce que pour waxee association ay termes juridiques juridique la yoo xamante ne bu ñu ko waxee rek xel am na loo xamante ni dafa am ay limites. Mhm. si wàllu li nga yoon ak yooyu. Mhm. am na solo oustaz jërëjëf oustaz Mouhamadul Amin jërëjëf sëñ Mansour tontu loolu am na solo hmm. xam naa euh, ñaari mbir yooyu moom dañ leen di te teqale bu boobaa hmm. muy tarixa ak euh, mouvement islamique yi hmm. waaye bu ñu leen teqale ba noppi dañ leen di boolewaat ndax itam daa mel ne ñoom ñoo bokk lu leen tax a jóg euh, bari nag ku naan ñii dañuy xeex mag ñi te kooka moo defalul mag ñi dara rek ndax da ngay jaar sa yoonu bopp léegi nag ku lay filaat wala ku tegu ci yoon da ngay jàpp ne moo jaarut ku ci aw yoon waaye ñi xàmmee danañ xam ku nekk ci yoon ak ku nekkut ci yoon bëgg laajaat foofu oustaz te di ko laaj xam naa Cheikh Ibrahima Sarr lu tax ngeen taamu semaine bi ñu jagleel ndaw ñi maanaam comme ni ñu waxee ne da ngeen di jël semaine bi ñu jagleel ndaw ñi ci réew mi wala ci àdduna si yéen itam ngeen taamu cee def seeni activité euh, da ngeen cee jublu récupérer ndaw ñi nga xam ne dañ doon dem ci caaxaan ya wala da ngeen cee jublu toppandoo mm, comme ñi nga xamante ne ñooy yëngutu ci geneen fànn gi wala lan ngeen jublu ci loolu lu tax ngeen taamu dat boobu. Ah, jamono ji nga xam ne moom lañ jagleel ndaw ñi. Hmm. te ñu bëri ci ñi bokk ci association yi maanaam toogoon di nelaw ñii ay élèves lañ di jàng ñii ay jàngalakat lañ. Hmm. te ci jamono jooju ci lañuy gën a xaw a oyof tuuti. Hmm. pour mën a ñëw bokk ci liggéey bi. boole kaak tamit liñ tàmm semaine bi nii semaine bi mooy ndaw ñi kon nag te ñu bokk ci ndaw ñi kon yaakaar naa ne loolu. day mel ni nga sànniwu benn xeer rek reyaale ci ñaari ci lay doon. baa loolu du jékki-jékki nii rek di yooyu <laughs> wala bu rafet amut. ah kon lii ban bidaa la kullu bidaatan dalaala lii du lii du bidaa. Ah. lii affaire organisation la ak xool ni mu gën a baaxee. <laughs> coow li de dugal nga fi ay galgal yoo xam ne après dañ ko laqat. parce que yow. Cheikh Mbacké ah, waaw. Euh, par rapport ak choix wu choix wu kii bi. waaw dafa am dafa am solo lool. Hmm. E, effectivement damay saluer question bi nga xamante ne posé nga ko. Hmm. Euh, rahmatullahi alayhi euh, sunu maam Ibou Sa Ibrahim Sakho. Hmm. Ibou Sakho rahmatullahi alayhi je mhm. pense que ni bu nit ñi daan dem. Mhm. foofu dëkk boobu nekk ci wattu dëkkam. Mhm. ci la daan woote li nga xamante ne mooy dajem googu. nga xamante ni da daan jublu nit ñi joxe beneen modèle boo xamante ni nit ki war na mën a yëngatu ci loo xamante ne da ciy amee tuyaaba. Euh, fii tamit lu ñu mënti wax xam nga léeg-léeg euh, dafa jot dafa jot. Mansour mu ngi koy junj sànq. dafa jot sénégalais yi xam ni. mën nañ dund lislaam boo xamante ni buy jëriñ réew mi la te duñ ko jéggaani feneen mhm. c'est-à-dire keneen mun na am expérience bu ñuy jëriñoo ci moom mhm. mais tamit dañuy rester doon ay sénégalais mhm. ci biir cadre boobu moo tax mag ñi ne ñu ci biir ki semaine de la jeunesse nañu fexe ñun tamit di ci def ay activités yoo xamante ni dañuy invité ministre de la ministre de la jeunesse. Mm-hmm. ministre de la jeunesse yóbbul nañ ko li nga xamante ne mooy invitation. Mm-hmm. pour wan ko ne ko ñun tamit am nañ beneen modelle boo xamante ne lañ bëgg a montrer li nga xamante ne mooy réalité au Sénégal xam nga mm-hmm. tey jii nii Cheikh Mbacké. Euh, dafa nekk quelque chose boo xamante ne buy metti la ci xol boo dégloo léeg-léeg ñenn ñi bu ñuy wax li ñu defal ndaw ñi. da ngay gis koo xamante ne dafay wax ne man sama ndaw gox defal naa leen nangam. Mhm. yow ngay yàkkamte en tant ndaw di xaar lan ngay déglu lan la la defal. Mhm. mu ne defal nañ leen terrain bu football. Mhm. defal nañ leen li nga xamante ne mooy euh, fi ñuy tase. waaw euh, foyer foyer des jeunes lañ leen defal. yóbbul nañ leen mayo yóbbul nañ leen cest dire du foyer des jeunes. du mayo du leneen moom mooy tax ndaw bi mun a tabax li nga xamante ne mooy réewam. ndaw bi mu mun a tabax réewam faw mu am ay xalaat yoo xamante ne yu sell la mm-hmm. am ay xalaat yoo xamante ne ñooy nàcc loo xelam di yëngal li nga xamante ne mooy xelam pour mu mun a nekk koo xamante ne kii ñaareel bu moo di ne ndaw bi mu mun a am sila billahi subhaanahu wa am jokkoo ak borom bi subhaanahu wa taala xam nga tey jii nii boo xoolee ñi ñuy xool ci biir réew mi moo xam jëlal ci wàllu li nga xamante ne mooy eh, ñoom Lat Joor ak ñooñu mm-hmm. Lat Joor ak ñooñu booy xool ci âge âge ay ndaw lañu woon ay jeune lañu woon mm-hmm. tey booy xool ci âge bi ñu amoon ay ndaw lañ woon booy xool tamit li nga xamante ne moom mooy bëri na ay ay ay ay ay héros yu ñuy wax ci biir réew mi mm-hmm. ay ay ndaw lañ woon ci âge bi nga xamante ne moom la ñuy jàppee la euh, âge âge mm-hmm. tey jii nii loolu moo tax ñu tànn ci biir li nga xamante ne moom mooy semaine de la jeunesse bii nii mm-hmm. di ko ci def tàmbale ko ren nag di ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu am yi nga xamante ni mooy yeneeni ati at mais dañuy insister ci semaine de la jeunesse parce que ñun ay sénégalais lañ te yàlla subhaanahu wa taala defaruk Sénégal du ko laaj ko jóge France du ko laaj ko jóge Arabie Saoudite du ko laaj ko jóge kawet mais lim koy laaj mooy ñi nga xamante ne mooy waa Sénégal mm-hmm. fa lawla nafara min kulli firqatin minhum taifatun li yatafaqahu fi ddiini wa li yundiru qawmahum ida rajaau ilayhim kon ñun ñun ñoo nekk ay sénégalais mm-hmm. war a li nga xamante ne mooy la jeunesse sénégalaise modèle bu baax boo xamante ne kon ci biir semaine bii la ñuy wan ne dundal semaine de la jeunesse avec notre une autre façon boo xamante ne moom la ñu koy dundalee. am na solo Oustaz jërëjëf jërëjëf Oustaz Mouhamed Lamine Diop xam naa ma jox la kàddu gi nga ñëw ci sëñ Mansour mu waxaale ñu itam kan mooy def waxtaan wi bu dimanche. waaw nga xam ne fi nekk nii daanaka juróomi simili moo ñu. dese ci wër bu njëkk mujj bi euh, ci wër bu mujj bi. Mm-hmm. léegi kay dañuy jaar ci. Euh, sëñ Saar waaw Cheikh Ibrahima Saar daal ci sëñ Mansour. Mm-hmm. moom mu tënkal ñu. incha allah akkentel ñuy li nga xam ne <laughs> mooy jotaay bi li ci tege bisimilah Cheikh Ibrahim Cheikh Ibrahim euh, kon euh, ñu ngi kamis am na ay mag am na ndaw mhm. na jigéen ñi waaw li nga laaj am na solo jigéen ñi tamit ñoom bu ndaw ñu weesoo ñoom it seen journée ngi ñëw Ah. parce que baral na leen tamit ñoom it seen seen seen euh, wàll ci nag wi. nga xam ne bii surne ndaw ñu góor ñi rek. waaw am nay jigéen ñu ci bokk waaye ñu góor ñi ëpp. Ah, waaye nag am na ñoom seen bos spécial bi war a ñëw. Mhm. incha allah ci jamono yi boobu moom jigéen ñu mag ñi la jigéen ñu ndaw ñi lépp. waaw jigéen ñi ñëpp lépp. d' accord waaw si Mansour kon yow lañuy bàyyi nga fàttali ñu bés beeg li ko tax a jóg ak fi ñu koy defeek ñu koy def ak lu ngeen ci séentu. Euh, macha allah oustaz ni nga ko riimee noonu am na solo bés bi incha allah mu ngi doon euh, dimanche le premier avril deux mille dix huit mhm. bu quinze jotee si salle bu mag bu UCAD 2 mhm. ki nga xamante ne moom mooy taxawee waxtaan wi di kàngam bu mag boo xamante ne bu ñu ràññee la si biir réew mi mhm. waaye itam ku ñu ràññee si action islamique muy Cheikh Mokhtar Kébé di président du rassemblement islamique du Sénégal gën a siiw si RIS Al Wahda moom mooy taxawee mbir mi ki nga xamante ne moom moo ko siy jàppale di al oustaz Hassan mi nga xamante ne itam moom it ku ñu ràññee la si liggéeyu lislaam la si biir réew mi loolu nag li nga xamante ne moom la si jublu rek muy gën a tàggat ndaw ñi waaye itam gën leen miinalante parce que itam ku si nekk yaa ngi liggéey si association nekk sa wet sa gox di liggéey waaye coordination bi pour mu am loolu bokk na si li nga xamante ne moom moo ñu tax a jóg ngir gën a mën a harmoniser li ñuy wax l'action islamique bu ko defee shabab yi jeunes yi miinante euh, weccantoo xalaat ku si nekk dagg jéngi yi nga xamante ne moom moo la tënk Mm-hmm. nga gën a miin sa morom ngeen jàppalante. Mm-hmm. bu ko defee loolu dina yombal bu baax a baax a baax li nga xamante ne mooy action islamique si biir réew mi. Mm-hmm. parce que itam dina la may yow expérience bi nga am nga mën ko jox sa morom. si li nga xamante ne moom nga ko ëppale. tey amaana exemple man ma dëkk Yoff di fa liggéey. am na loo xamante ne lu bari manqué na ma loo xamante ne beneen mouvement ñu ngi fi di liggéey. loo xamante ne soxla naa kon kooku bu ma ko jigewul du ma mën a am expérience boobu. si loolu ndëkk loolu leen bëgg a dindi jéng nga xamante ne moom moo dox suñu diggante. ñu dagga loolu bu ko defee daje waxtaan miinalante suñu bopp bu ko defee ku si nekk naql tajaarib bi nga xamante ne moom nga am muy expérience bi nga xamante ne moom nga am nga jox ko sa moroom ngeen weccoo si seen xalaat bis boobu nag ñu ngi si oo bépp koo xamante ne rek jullit nga di ndaw lislaam yitteel la waaye liggéey lislaam yi la itam si biir réew mi ñu ngi si oo bu ko defee nga ñëw jàppale ñu si ndaxte itam yaakaar naa njariñ rek lañ fay fekke incha allah mhm. bu ko defee di ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu may ñu fekke attal di si tamit ñu ngi la si oo bu baax a baax di si mhm. souhaité sa sa dina si am solo torop mhm. ndax itam ñu ràññee nga si liggéeyu lislaam bi si biir réew mi alhamdulilah jërëjëf sëñ Mbacke jërëjëf xam naa kon ñu ngi ci kàddu yu mujj yi di jeexal dañuy jox kàddu gi oustaz Mouhamed Lamine Diop moom itam ay tàggutoom waa di jaajëfal li nga xamante ne mooy oustaz Mbacke jaajëfal tamit sunu kilifa oustaz Ali ko ñaanal yàlla subhaanahu wa yàlla na yàlla gën a dëgëral taxawaay di wax rek ni ñu ngi woo mbokk yëpp ci li nga xamante ne mooy daje boobu euh, li nga xamante ni mooy dimanche comme ni ko Mansour waxee ñu fexe ba ñëw ñu xool ni ñun jeunes yi bu ñu waxee jeune yan jeunes ñoo mën a porte développement wu Sénégal yan jeunes ñoo mën a yóbbu Sénégal jeunes yooyu nan lañ leen di waajalee lan moo war a nekk ngànnaay yi nga xamante ne war nañ ko am pour que développement bi ñuy séenu Sénégal nga xam ne tey jii émergence xalam la boo xam ne ku jug mu ngi koy xalam. Mhm. est-ce que ndax yor na guitare goo xamante ne mën na ko xalam. Mhm. wala déet bu boobaa buñ ñëwee dinañ xam nan lañ mën a. préparé bu mën a taxawu suñu réew si jaajëfal mbokk ñi nga xamante ni ñoo doon ànd ak ñun jërëjëf dimanche quinze heures ci ngoon. fan la incha allah ECAT 2 université Cheikh Anta Diop. Mhm. waaw ku ñëw ba biir université daal bu laajtee ECAT 2. ñu wan ko ECAT yàlla mbokk étudiants yaa ngi foofu dinañ ko tegtal. ay ca sa kàddu gu mujj. Euh, di sant di gërëm di euh, ñaanal ñi nga xam ne ñoo doon déglu waxtaan yi tey ñaanal tamit. Euh, suñu kilifa yi nga xam ne ñoo nekk suñu ginnaaw sës suñu rëkk te duñu rëkk mm. suñu borom tabaaraka wa taala yàggal leen fi guddal seen fan Euh, yokk leen wér euh, defal leen tamit tawféex yéen ñi tamit yor émission bu am solo bi di ci jàppale euh, sénégalais yi bu baax yàlla yàlla guddal seen fan tamit yokk xam-xam bi wéral seen baat te def seen poos lu bare bare <laughs> jërëjëf Cheikh Ibrahima Sarr suñ Mansour kon jotaay bi jeex na waaw suñ Mbacke vraiment am nañ kontante bu baax si dalal gi nga xamante ne mu ngeen ñu dalal. Mhm. di leen jaajafal bu baax itam parce que itam gis nañ bu baax seen taxawaay si biir réew mi ak si diine dogal na man ak bokk nañ ñaari yoon. Mhm. plateau Touba TV dëgg la nga fay joxe itam lu am solo. di ko def si diine ji di ko def itam si penc mi. jërëjëf donc yàlla yàlla fay leen di jaajëfal itam suñu oustaz Alioune Sall. Mhm. di jaajëfal képp koo xamante ne mu ngi di déglu di si jiital ki nga xamante ne moom mooy njiitu kamis di docteur Abdoulaye Lam Euh, di leen nuyu ñoom ñëpp di nuyu itam képp koo xamante ne yaa ngi déglu si biir réew mi bitim réew di leen wax wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf oustaz. ok waaw sëñ Mbacke kon li ci tege mooy. li ci tege gannaaw bi ñu jaajëfalee gan ñi dalaloon fàttali li leen fi taxoon a ñëw di ndaje mu ñuy woote mu war am samedi ak dimanche waaye samedi ndajem tëju la moo xamante ne dañ fay waajale ay mbir dimanche mooy ndaje mi ñu woote fële ca université ci ICAT 2 bu 15h jotee. Mm-hmm. Eh, oustaz Makhtar Kebe mooy eh, amal waxtaan wa war caa ànd ak oustaz Assane Seck kon jullit yëpp lañ ca woo waxtaan wu am solo la oustaz li ci topp mooy bàyyee waa rédaction bi yi ci français ak téléphone bi bu leen doxal seen ak déglu ci kanam tuuti la loolu di am incha allah naqadura saxaab bi himmati shamaa